mo ngi nonu ñu ñëwaat nak tay ab vidéo bu ama am solo jëm ci jangat jëm si demuk premier ministre Ousmane Sonko fële sa Touba Mbacké ñu gis ku ci melni nak mbay Mbaye mom nak mu daal di fay yëkëti ay kàddu lu mu e, gat dal ni ngi koy waxee daal nay buruxlu dinañ ci ñëw mom mbay Pekh mi nga xamne nak daf man nañ ne amna fo xamne mom mi jaar na fa ak ki nga xamne nak premier ministre Ousmane Sonko jamono bi nak patriote yi ñi ngi naan dañ ko wara ku bokk wala am déet di leen si ñëw waaye tamit demu ko président basiru Diomaye Diakhar fay ak soxnaam fële sa Touba Mbacké ziara ji di leen si ñëw loolu lépp tamit ak ay jàngat am solo comme nañu koy faral di defee ay ay mbay permis ñuy wax ak ñëpp ci yam ma ne ku ma gis nga def lu mel nii man damay jàpp ne da nga nekk nit koo xamante ni si amoo looy bañ amoo looy rus te yow ñàkk nga jom ñàkk jom goo xamante ni si den dara loy bañ ci sa man loolu laa jàpp ndax man munuma la xas démb ak barki démb xëy suba àdduna neex àdduna neex ba ma ñëwaat taxaw ci mbooloo mi naan dama lay tàkk loolu barki seydina mohamed man rus naa ko kon man nit ki nit boo defee yenn yi rek man damay jàpp ne ñàkk jëmum nit ki la ndax yow mi nga xam ne daf la doon xasal démb ak di la wax nag sudul noonu ba démb bis ñëw mu taxaw bëgg laa tàgg ci kanamu nit ñi yow mi muy tagg boo taxawee ci kanamu nit ñi nga ne ko doo ma tàgg wala doo ma doo doo <laughs> ma tàgg doo wax ci jëme ci man bu yàgg est ko que doo mel ni moom da mel ni moom li ngeen rek mooy taxaw da ngay taxaw xam ne xel ne kii lii muy wax nii du nekkul lu mu gëm da ngay xam ne nekkul lu mu gëm te ba tey boo demoon ba tey àdduna sensé waat nam demee nekk woon ak yow bu démb ak bërki démb noonu lay nekk waat ak yow kon kooku yow da ngay mën a mën a taxaw fu dëgër da nga koy mën boobu nga koy gën a moytu ndax bi muy naqari dëgg lam la doon wax loolu la gëm xam na ne li muy naqari moo tax muy wax la lii mu demee ba neex na mu ñëw bëgg laa tàggat yow da xam ne xel ni ne kii li muy wax gëmu ko li muy wax gëmu ko kooko sax nga gën a mën a moytu ko waaye doo mën a taxaw benn yoon ci mbooloo nga ne ko doo ma tàggat ci biir nit ñi wala doo non am na yoo xamante ni yow da nga koy déglu sax yow ay ay dalay da lay jàpp yenn yi da toog yow ay ree da lay jàpp quoi yow doo Euh, gaa yi moom dangay dem ba dootoo xam sax yow dootoo xam ci sa bopp dara waxatuma la ñoom ci sa bopp sax boo te dootoo xam ci sa bopp dara ndax euh, maa ngi gis ñu gis benn photo boo xamante ne soxna Bali ak soxna président Bassirou Diomaye Faye ñoo ko ànd ñu na gaa yi di ca def ay vidéo di ca wax loo xamante ne jaru ko tey monon maak yow buñ jote woon ba xeex wala ñu am problème buñ mën am circo circonstance mën nañoo boole ban circonstance to circonstance bu ëpp magalu tuba ci Sénégal amut maak yow mën nañoo bokk benn sal mën nañoo bokk benn bool sax di lekkandoo te teewut maak yow en tout cas dañoo am problème mais lañ moo ñu mooy tuub magalum Tuuba te loolu il faut que nit ñi xam ko tey koo xamante li nga mën a wax mooy ñii de kii de gis naa ko ci bureau président Ousmane Sonko wala gis naa ko ci meeting boo xamante ne Ousmane Sonko moo ko woote wala gis naa ko muy fogg ay bunt yoo xamante ne buntu président Ousmane Sonko wala kenn ci gouvernement bi koo xamante ni membre la ci gouvernement bi kon mën ngaa wax sax luñ mën a wax te bu fekk ne la la ko yëkkati sax réew mi la. war na faa mën dem ndax réew mi ñun ñëpp ak ko bokk réew moom buñ fa bu fallu xasee am ñi ñi contre ak ñi ànd ak ñi wote ñi wut ñi a ci bokk yem ya leen bokk yilif to nit ki mënoo yilif ñi yilif ñëpp ba pare di segg ci biir ñi nga yilif di wax ne ñi lay xel di waxal duma wax ak ñi loolu moom du kilifteef te loolu itam du responsabilité te ñi ñewuñ fi ngir xaajale sénégalais yi dañ fay ñëwut ngir xàjjale sénégalais yi dañ fay ñëwut ngir tàqale sénégalais yi dañ benn sénégalais yi lañ bëgg a def benn sénégalais yi mooy ñëpp doon ab sénégalais ñëpp doon ay citoyen sénégalais ñëpp doon doomu Sénégal ñoom loolu moo leen tax a jóg ki nga xamante ni def fee ñëwoon nag ngir xaajale sénégalais yi moo indi fii moo fi indi lépp mooy ñaari sénégalais yi ñoo fi mos a nekk. ñii nag dañoo ñëw ñaari sénégalais yow nga xamante ni Macky Sall moo leen fi dugaloon ñoom ñu dajale leen muy du benn sénégalais bokk bëgg-bëgg bokk yeene liggéey réew mi bu jotee nag ku ne fa nga mën ne nga dem defa ko fa loolu mooy mbir mi mais wax dëgg yàlla tekkiwul ne ku àndutoo woon wala ku contrôle rek tey dañoo yëg si foo xamante ne tey wax dëgg yàlla waratoo woon a wax wala too mën a jëf te président Ousmane Sonko de man mii. xëy na euh, buñ ne xalis général moo ëpp dayo ci euh, ci ci ci tarixay murit tey moo fi ëpp dayo mais président Ousmane Sonko mii waxuma la xalif général waxuma la suñu Cheikh Saliou mais suñu Serigne Serigne suñu Ismaïla Diouf suñu euh, président Ousmane Sonko mii dem na bu fekki ko fa te doxalin gii mu doxal ci ñii la doxale ci kanamam kaddu yu rafet la fa wax kaddu yu jekk la fa wax président Ousmane Sonko nii la mos di dunde nii la mos di jëfe nii mooy melokaanam kon nit ku mel noonu nag bu ba bul gis mukk mu jaxasoog nit nga war a wax ne wax dëgg la warutoon woon a jaxasoog moom am na ñoo xamante ni loo leen mën a def ci àdduna bu maanaam bu bés bu leen boolee jotee di nga yaakaar ne mosoo leen a def dara te loolu nag mooy nite daa am ñoo xamante ni nitewuñu xam nga doon nit taxut a nite doon nit tekkiwut ne dangaa nite nite mooy nit ki mën na laa def adduna ak li ci biir mais fa ngeen ko jotee bu fekkente ne jote la wala wax la lu fa ngeen ko waxee wala fa ngeen jotee fekk demu leen ba foofu du la mos a won ne lii naqari na ma wala neex na ma wala leneen ak leneen fu ngeen daje daa mel ni yéen mosu leen a seq dara loolu mooy nite waaye lépp loo ombal sab noon mu xam ko lépp loo ombal sab ñoñ mu xam ko loolu moom bokkut ci nite nit war nga koo ombal lu liis lu metti mais su ngeen jàkkaloo nga rafetal sa diggante moom rafetal bi nga xamante ne moom la moo war diggante doomi aadama ak moroom bu doomu aadama am loolu dafa am solo nite googu dafa am solo ci doomi aadama te président Ousmane Sonko ku ne xam na ne xoolal ñi nga xamante ne président Ousmane Sonko dafa àndoon ak ñoom defal leen ni teraanga defal leen lu ne ba leen politique taqalee mosoo xalaat mu wax a wax ba tudd leen amul ci àdduna tu nite bu mel noonu am na ñoo xamante ne bu bu bu buñ ñu leen defa buñ la defalee lu toll li tarfatul ay ni boo leen contrôlé rek wala nga àndatu ak ñoom fuñ taxaw wax ko xoolal ñi waru président Ousmane Sonko ndax mos ngaa dégg mu wax tudd leen déedéet te teraanga gu ne defal na leen ko teewut ñu war ko kii maanaam nite gi mu yor ñi la kenn xamul